tusbaar alxuraan bu ñu jullee tusbaar ba dix kasai heures xas-xasaay lu lu lu la fi mu ne nii ban murit mooy nangoo génn benn ci kuréel ya yooyu ñett yooyu ngay door ngay boole ya, door nek nekk jullit ak tam hmm. door a nekk door a mën doon pour nga da ngay doon ak tam sikrullahi iman bi la hmm. alquran mooy islam kasai di mooy islam ñetti yii ñooy dajee nga door a nekk jullit atam léegi nag boo ci génnee benn at sikirulaay bi bàyyi faale leen ay ndaw yow doo bàyyi faal bàyyi faal mooy ku yàlla gënal boppam amul leneen lu muy firi loolu da gis nga ka ko meloon daa sant faal ñu naan ko bàyyi faal bu sandoon buso yi ñu naan bàyyi buso bu sandoon jóob ñu naan bàyyi jóob mais faal la sandoon moo tax ñu naan bàyyi faal ku yàlla gënal sa boppam rek la loolu mooy bàyyi faal amul leneen léegi nag yow yow yaa ngi gënalul la sa bopp yow génn nga ci kuréel ko loolu bi loolu bi ñu leen boole murit bu dëggal bàyyi te bu bu bu doxee rek nga gis ñu niroo seet li la la mu doy seet la ëpp ci jëfam séeréer la yëpp da koy rek baax man man moomu daa am taw féexu saa borom njëkk ko gindi ca doxin wa mu wane comme moom magoon ñi mu nekkal ñu naan ko bàyyi baal <laughs> loolu rek wante santoon jóobit di bàyyi jóob wala muy bàyyi jóob wante wante wante noonu noonu la demee kon su ko defee ñun ñëpp dañuy xam ne sikru laay suñu mbir la bu dul woon di ko bi woote yi dañ ko war a def mm-hmm. ab jullit lu mu néew bu xëyee wax naa la ilaha illallah la ilaha illallah téeméeri yoon bari lu muy def ci nit mm-hmm. noo ko gën bari lee nag gën sori àdduna gën gëna jege yàlla mm-hmm. seytaane yëpp gën laa sori nag baat boobu mom moom ni bombu mel la la mel ci seytaane kon euh ñu ñu xamé ko noonu man de comme dama pon dof bi ko seen bi njëkkee woote ci carte six mille six cent soixante six laa carte teewul maa ne ci biir si parce que nit il faut nga xam li ngay def lu mu doon nga nga xam yaa